day bëgg wax nag ku fase jigéen mbaa mu teg ko gàllankoor boo xam ne tax na mënta dut jëkkër lam ko warul ci ab dëkkuwaay mbaa leneen moom lay bëgg a teqale man ngaa njëkk a takk ne kuy iddawu iddawu faatu moom kenn du ko jox njël ci alali dëkkëram bu yàkkantee ñu miraas rek ku ne jël sa wàll ba tey ku ñu fase pase moo xam ne amul ak fay li bu fekkee ne ambut góor ga ko fase du ko ameel ab dund pase pay li moom mooy rek jëkkër ji bu ko neexee mu jekki-jekki ne fabaat naa sama soxna soxna sa bu sañ a bañ ay mbokam di sañ a bañ kooku moom di fa idda ji jeex moo ko war di jox dund ak dëkkuwaay dañ koy atte atte soxna dëkkuwaay bi nag moom la ñu wax ne ku fase jigéen rek moo xam pasem payli la moo xam pase mu nanguwul fayli la yaa ko warlul dëkkuwaay ba ba idda ji jeex suñu borom dene laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna kon ku fase jigéen moom diirub idda ja yaa ko ameel ab dëkkuwaay daañu leeral ne fa mu dëkkoon fa la war a toog ba idda ja jeex ki jëkkëram faatu daañu leeral li tax mu sañ a toog foofee ci dëkkuwaay ba ba iddaam jeex ñu teel la jàpp ne jigéen bu ko jëkkëram fasee mbaa jëkkëram faatu duñu wax ne rek néeg ba mu dëkkoon moo ko moom lay tax daal mu moom néeg ba mu nekkoon baa kër ga mu nekkoon day fekk mu bokkoon ci alali séy ji nga xam ne ba mu koy takk la ko waxoon ne ko da nga may wutal ab néeg mu bokk ci alali séy ji mbaa kër mbaa leneen daal loolu moom lu yàgg-yàgg moo ko moom waaye nag fa mu ko dëkkaloon rek ba yàlla dogal jëkkër ji faatu mbaa mu fase ko foofa la ko yoon sant mu bañ faa jóg toog fa ba idda ji jeex li fa amul ngànt lu ko fa jële moom du fa sañ a jóg ni ko alxuraan waxee nga xam ne bu yàkkamti woon bëgg a miraas bëgg a jaay kër ga te jigéen ja iddaam jeexagut dañu wax kay jënd ne ko diiru idda ji moom bokk ci doo mën a jot ci kër gi te ki fi iddawu iddawul ba noppi lim tàmbalee gu na wax nag mooy ku fase jigéen moom moo xam pasem payli la moo xam pase muñ mënta fayli la diiru idda ja yaa ko warlul dëkkuwaay ba koo xam ne it la ko tee mën a sëy yaa ko ko teg du fase sax waaye leneen loo xam ne yaa ko ko teg mel ne mu siif jigéen njaaloog moom jigéen de moom neexu ko bu ko neexoon kenn du ko warlul dara diirub laablu ga moo ko ameel ab dëkkuwaay war ko jox itam nag can jotoon na noo leeral ku jotee jigéen te tey ko moom góor gi te jigéen ji teyu ko xam ne moom góor gi njaaloo na waaye jigéen ji njaalowut waxoon nañ can gam ko war a jox fii nag mu boole ji wutal ko it ab dëkkuwaay diirub laablu ga te laablu ga day toll na idda ni ñu ko waxee woon ci gannaaw ci takk-takk moom ku ko fase jigéen rek diirub idda ja yaa ko warlul dëkkuwaay ba ak noo ko mën di amee itam moom waaye nag bu jëkkër ji faatoo lay tax soxna sa am sañ-sañu toog ca foofee idda woo fa ñaari sart la benn ba mooy na fekk mu wéetoon ak moom mbaa boog la teewoon mu wéet ak moom mooy soxna say gone te teewut bu andi woon ko nekk ak moom ci kër ga dagam gone la mënta wéet ak moom waaye andi woon na ko nekk ak moom bu faatoo day mel ne wéet amoon na sart ñaareel ba nag mooy fa jëkk ja nekkoon ba faatoo fa doon ab dëkkuwaayam mu moom ko wala ku moomu ci fayoon na luyaas ba bu góor ga moomul dëkkuwaay ba waaye fayoon na ba fay lu mat jiiru idda ji mbaa mu ëpp ko foofu la jigéen jay toog idda woo fa idda faatu ga bu fekkee fayoon na lu ko yées nag lam fayoon rek la fay sañ a toog waaye du ko sañ a weesu lu may mu am ci ak déggoo ña moom barab ba mu ne nag ku ñu ne da ngay iddawu da ngaa war a toog ci barab ba nga xam ne fa la la idda ja dabe kër ga mu nekkoon mbaa néeg ba mu nekkoon ba idda ja dale ko ca fekk ko ca daal foofa lay toog ba idda ja jeex li seeg muy am gàllankoor bu ko fa mën a génne waxoon nañ ne suñ aari wala fi moom ku ñu fase rek moom ci boppam du nangoo toog day daal di jël ay bagaasam dem waaye daal suñu borom moom diisal na lool loolu ci alxuraan wax ne ka ñu fase bu mu génne boppam bu ko jëkkër ji génne bu ko kenn génne illaa an yatiina bi faahishatin mubayyina mu ne sax bu jëkkër ji génne woon soxnaam fa mu dëkkee woon dëkkal ko feneen gannaaw ba nag mu fase ko mbaa mu faatu dañ jàpp ne moom kat daa bëggoon rek bu ko fasee fekk mu génn ci kër gee nekk ci gële mbaa daa bëggoon rek bu faatoo ba muy iddaw itam fekk mu génn ci kër googa loolu dong lañ ko tuumaal ci la ñaam jort ne li mu def lépp looloo ko waral dañuy delloo jigéen ji ci dëkkuwaay bu njëkk ba dañ ko bàyyi ci fii nga xam ne laata mu koy fase mbaa laata muy faatu fi la ko andi woon ngir bëgg koo dëngee ak bëgg a def la ko neex rek bu fekkee nag gisuñ ci luñ cee ñaaw njort mbaa luñ koy tuumaale kon baax na mu ne bu fekkoon ne sax jigéen ji bi jëkkëram di faatu mbaa biñ ko fasee daa fekk nekkutoon ci néegu séyam mbaa kër gëm doon séy itam fa mu nekkoon dafa daal di bàyyi ko daal dellu si ci néegu séyam ba idda ji jeex mu misaale ko bu fekkoon ne jigéen ji daa demoon ci genn kërug jaamur di leen nàmpalal ñu koy fay dañ sartante moom ne ko fii nga koy fekk di ko nàmpal waaye duñ la ko jox nga yóbbu sa kër loolu taxoon nag mu taxu dem ci kër jàmbur googu di leen nàmpalal ñu koy fay bu yëgee ne jëkkëram fase na ko mbaa faatu na te war a bàyyi nàmpal gaag lépp dellu si ci néeg ba doon séyee idda woo ca ba idda ji ma bu ko ñooñu ne li nag nga yóbbu suñ doom fii rek nga koy nàmpale ñu jàpp ne kon jëfalante ba yàqu na nañ ko fay lam jot a nàmpal te bàyyi ko moom mu dellu ci li ko yoon sant mooy idda woo ci néegu boppam bu nangoo nag yóbbaale doom ji di ko nàmpal foofa loolu baax na mu ne ba tey bu fekkoon ne jigéen ji dafa génn di aji ajug farata maanaam mu ànd jëkkëram laata muy armal te it jotugut a sori ca yoon wa far jëkkëram fase ko mbaa jëkkëram faatu kon daa war a wàññiku dellu ca néeg boppam ba idda ji mat ndax idda ji lu yàlla farataal la santaane ko kon nag aj li muy baax baax te mooy aju farataam sax moom mësta aji su fekkee soreegul ca yoon wa jëkkëram fase ko mbaa jëkkëram faatu na wàññiku dellu si ci néegam def idda ji ko yàlla sant bu ko see sori loolu nag ca yoon wa mbaa mu dem ba armal moom day wéy rek ca aj ga ndax loolu ajug farata la mu ne bu fekkoon ne jigéen ji daa génn di aji ajug coobarewu maanaam ajoon na farataam ajug naafila rek lay def mbaa mu génn jëm ci leneen loo xam ne lu baax la mel ne fu ñuy faandoo maanaam dara bañ ragal yéefar yi songe fa jullit ñi taxaw fa di ko sàmm day lu rëy lool jigéen ji da bëgg a dem foofa di dimbali góor ña fa nekk tax mu génn di dem ak mboolem yu baax yi daal bu fekkee da koo tax génn doonte demoon na ba àgg ba yàgg fa sax lu toll ni at du tee moom saa yëgee ne jëkkëram faatu na ba jëkkëram fase na ko rek war naa daal di wàññiku delluwaat ba ci ab néegam ndax defe fa idda ji bu saña toog foofu rek idda woo fa faaw mu wàññiku ba ci ab néegam mu ne nag dellu gi ñu wax ne war na koo def kat ba mu koy war mooy am na góor goo xam ne gu ñu wóolu la ku doy la ku mën a ànd ak moom sàmm ko ba mu dellu ci néegam te yoon wi ci boppam am kaaraange nga xam ne amul dara lu ñu ragal ci yoon yi bu ñuy dem te it mu jàpp ne dana mën a dem ba àgg te idda ji du fekk mu jeex kon yett yi bu ca tasee nga xam ne am na góor goo xam ne mën naa ànd ak moom yóbbu ko du dem rek moom dong yoon wi itam am na kaaraange amul luñ ci ragal tey jàpp na ne moom dana dem ba àgg te du fekk idda ji jeex su boobaa kon war naa def wàññi ko di ñu wax nee na bu jigéen ji génnoon mel ni ànd ak jëkkëram ñu tox ci beneen dëkk ñu dem na ba ci yoon wi far jëkkër ja fase ko mbaa jëkkër ja faatu xam nga ñoom ci toxu lañ nekkoon mu ne kon mooy seet fu ko neex rek mu toog fa idda woo fa bu ko neexee wàññiku ba ci fañ bàyyi ko woon bu ko neexee far foofee ñu ko fase mbaa fa jëkkëram faatoo mu toog foofu idda woo foofu bu ko neexee tam mu jàll ba ci dëkk ba ñu jëmoon moom daal fa xay shaat ji matale na fu ko soob rek na fa toog idda woo fa mu ne ku takk jaam bu jigéenu jaambur def ko soxna waaye nag yóbbuwoo ko mu sëy si fi yow wutaloo ko am néeg da nga koo bàyyi rek foofa te ña ko moom mu ne kon doo ko fase itam mbaa sax li ñu wax faatu am kenn àdduna jébir boobee diirug idda ja kenn du ko ci amee ab dëkkuwaay nam nekke woon rek fa ay sangam jëkkër di ko fekk si na toogee noonu rek idda woo noona bu sangam yooyee dee dem sax di toxu mën naa ànd ak ñoom toxu dañ ko wax ne ko yow faaw nga toog te nga nekkoon ba idda ji jeex bu fekkoon ne nag ki takk jaam bu jigéen bi wutal na ko ab néeg wala mu yóbbu ko mu sëyi kon moom bu waree iddaw rek moo ko ameel dëkkuwaay ba ba idda jee jeex jigéen ji nga xam ne moom daa war a toog iddawoo ci ëpp néegam la ne moom su amee ngànt loo xam ne mënatu faa toog ñu ne ko kon demal seet foo mën a nekk mel ne dëkkuwaay ba dafa jekki-jekki daanu mbaa mu lakk mbaa foofa daa ñàkk kaaraangi lool bari ay sàcc ak ñuy luubal wala dëkkandoo wal fa dëkkal di ko lor lool te yoon nekk fa ba mën a teggi lor ja na bàyyi foofu mu doon iddawoo dem seeti feneen foo xam ne mën na faa iddawoo fa mu nekkoon def iddawoo bu demee mënatu faa nekk ne ko seetli foo man nekk fu mu jëkk yam rek te man faa iddawoo kon na toog foofu moom it bañ koo weesu bu demee bu mënatu faa nekk door a jàllat feneen te bañ koo weesu topp noonu na ba idda ji jeex dañ ko teeloon a wax te yax bi di ko door a indi kii iddawu jëm yi panaan mi mënu koo ñàkk def moom ci néegam waaye nag bu amee soxla yoo xam ne mënu koo ñàkk dox yi mën na koy dox yi ci boutique bi ak sax nee nañu bu fajar dee door a fenk mbaa muy jegee fenk la fa dale ba jant bi fenk day nuru lu bokk ci guddi ki waaye mën na caa dem dox yi ci soxla ba tey it bu jant bi sooyee la fa dale ba shafaq fàgg mën na koo boole ci ya muy doxe ay soxla la muy jege-jege guddi ga mel na sax ci guddi ga la bokk lañu waxoon ci soxlaam yi nga xam ne sañ na koo tax a génn it mooy lu mel ni wuti lu mu lekk mbaa lu mu naan mbaa daal lu mu jox jurgaag yitte yi mënta ñàkk waaye ni mu dawoon a yaxale moom mel na ni xeetu céet sax mën naa jékki-jékki dem ca na fexe rek ba fanaan si ca néegam mooy li mu waxoon moom mu dawoon na ne wa iza xarajat li xawaa ijiha aw li xursin aw li xursin jooju mooy dem ci ab céet fala tabiitu bi xëyri maskaniha jigéen ji nga xam ne mooy iddaw ñu ne ko sa dëkkuwaay baa nga ne kenn aayewula ko te yoon nee na fa nga war a toog iddawoo fa moom nag nanguwu faa toog daal di ko fay bàyyi dem di wax jëkkër ji ne ko kon faaw da nga koy wutal feneen mbaa naa ko fee mu war a nekk xat bu fekkee nekk fu boo ko luyee itam moom nga jox pay ga mbaa yooyu ndegam moom loolu la ko yoon sant moom war a def te nanguwu ko rek moo fa bàyyi ab dëkkuwaayam kenn du ko ko wecceeli dara moom nag moom mooy yàlla rek bu fase woon soxnaam fekk mu am ak moom doom joo xam ne li war a dëkkale ci mu fase noonu la war a joxe dund doom joojee kooku mu fase nag jekki-jekki daw dem ak doom ja te xamul fu mu nekk nga xam ne li mu koo jox dund ba mu ne kon lu mu yàgg-yàgg demee ba delsiwaat it kenn du ko wax ne ko fayal li weesu ci dund bi mooy li nga ko war a jox ci ab dund te joxoo ko woon ba léegi fay ko ko ndax moom moo jekki-jekki dawoo nag doom ji rek xamuñu fu mu nekk moom fekkoon ne xam ne fa mu nekk te mën naa dogu ci mu dellu si mu dellu si te defu ko nag kon lu jër ba yàgg-yàgg mu war a fay dundub doom ja ummi wala du dee fii ndeyu doom ku ma saam jaam bu jigéen ba am ak moom doom ñu ne jaam bu jigéen ba ummi wala du la nga xam ne doo ko sañ jaay doo ko sañ maye bu la neexee nag jekki-jekki goreel ko mbaa nga may ko jëkkër mu sëy bu génnee àdduna rek na yow mi di ab sangam te am ak moom doom moom mu daal di gore kooku nag la ne bu ab sangam faatoon bàyyi ko gannaaw diir ba muy laablu ba gis baax benn yoon waa bu fekkee daa ëmb mu toog ba am doom diir boobu dañu koy gàddul dëkkuwaay boobee muy dëkk ba laablu ga mat waaye nag ndegam sang bi faatu na te yooyu jamono fekkul mu ëmb moom kenn du ko jox ab dund ndax bu amee moom doom doomu joojee moom dana doon bu fekkoon ne sang baa ngi fi faatuwut goreel ko nag mu war a laablu kon sang baa koy ameel barab ba muy toog laabloo fa ba laablu ga jeex te bu ëmbee it mu war di ko dundal boole ca jigéen ju am jëkkër daal di génn ci lislaam li ñu wax murtat ñu wax ko nag mu tuub mu bañ ñu war koo laablu nag ba mu gis baax benn yoon baa bu fekkee dafa ëmb ñu war koo bàyyi ba am doom diirub laablu googu la ne jëkkëram moo ko ameel dëkkuwaay ba mooy fa mu nekk ba laabloo fa bu ëmbee itam mu war di ko jox dund ndax ëmb ba dafa jublu jigéen ja nga xam ne ak góor daa joteeg moom jaawale ko soxnaam ci misaal xam ne moom jigéen ci boppam da doon xam baa mu jàppoon ne rek jëkkëram la waaye xamutoon ne kii di joteeg moom di jëkkëram kooku nag day am ak teqale bu baax kañu jaawale ba jotee moom mën naa am fekk mu am jëkkër mën naa am itam fekk amutoon jëkkër bu fekkee amoon na jëkkër it mën naa am jëkkër ji jot naa jotee moom mën naa am jotuta jotee moom mu ne ci gàttal mën nga ne jigéen ji nga xam ne dañ ko jaawale jotee moom te teyu ko benn fekk mu am jëkkër wala fekk amutoon jëkkër bu fekkee amoon na jëkkër benn jëkkër ja jot naa wéet ak moom wala jotoon na wéet ak moom bu fekkee nag amutoon jëkkër ñu jaawale ko noonu te ëmb ca kon dogu nañ ci ne ka ko jaawale bu ëmbal ko moo ko ameel dëkkuwaay diirub laablu gi moo ko ameel ab dund su fekkee ne ëmbul nag xam nga moom amul jëkkër te it bi ko koy jaabalee jotee moom ëmbewu ca ne kon moo war a dundal boppam diirub laablu gi waaye nag dëkkuwaay ba ci boppam moom ki jotee moom ngir jaawale ci ñàkk tey moo ko war lul dëkkuwaay ba su fekkoon ne ki ñu jaawale ba jotee moom amoon na jëkkër waaye jëkkër ji nag jottoo na wéet ak moom ak may rek moo doxoon seen diggante kon bu ëmbee ci jaawale googee kookee ko jaawale bu ëmbal ko moo gàddu yaar yëpp moo ko war a gàddu dund war koo gàddu dëkkuwaay ndax lim ëmb su fekkee ëmbul nag ne kon dañuy teqale wax ne ndegam ëmbut dëkkuwaay ba ka ko teg loolee moo ko ko war a gàddul waaye nag moo war a dundal boppam bu fekkoon ne nag ki ñu jaawale ba jotee moom amoon na jëkkër te jëkkëram jot naa wéet ak moom da nga weesoon mooy jëkkër ji jottoon na wéet ak moom ne kon ndegam jëkkëram jot naa wéet ak moom rek mu ëmb ci jaawale googu ak mu ñàkk cee ëmb ñooyamoo rek jëkkëram ji moo koy gàddul ab dund moo koy gàddul ab dëkkuwaay lu may nag daa ëmb ci jaawale ga moom jëkkër ji mu waat rëbboonteeg moom ne juruma ko su boobaa kon ñu ne ko dund bi waru la dafa jàll nag ne bi mu weddee ëmb bi miin ko bañ ne ko juróo ko bañ ne ko doo ko dundal du tee nag moo ko war a jox dëkkuwaay dund ba moom jigéen ji ci boppam moo koy gàddul boppam waaye nag dëkkuwaay bi ci yooyu jamono jëkkër ji moo koy gàddu